tournée leen imaam si imaam sey kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ku baax la ak yeneen aima yi fi def yépp bismillah Seydi Hadji Maama man moom sëriñ yow xoom naa dugg nga àjjana ba pare ndax tawfiix bi nga ma defal yàlla xam ne heure bi jàppoon naa ne tëngéej la may fekk ndax bi ma ganee ganee àdduna mhm. tur yi ma yore bokkul woon ci suma programme mu bàyyi mhm. sama papa dafa façon yéene tuddee ma cousin muy alaaj mbay basin ca tënkee di di kala mbay mhm. eh, mooy ñaareelu ñi jàngal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh alquran ah, sama alaaj Malick radiallahu taala góor gi Sayer Gueye la ko njëkk a jox góor gi Sayer Gueye dem ak tuuti sa maam Abdou daal di koy delloowaat Maalañ Malick Maalañ Malick woo Alxaj Mbay Baasin Tëngéej jox ko ko sam papa lañ Mbay Baasin avancé na sax ba Chouara mu delloowaat ko Maalañ Malick eh, ñu dog ko jox nag sëñ Haadi Touré eh, te récupération yooyu du dara mm-hmm. Maalañ Malick bi mu leen laajee dañu ne daal sëñ Abdou mii daa muy daje ci moom moo tax mënuñu ko jàngat bi ci njëkk mooy yow rus nañ la ñaareel moom ci boppam gi ni mu làmboo te gone la dañ ko mujj rus <laughs> beneen bi ci des moo di moom yaram bi taxul mu kii dafa xaw a xiiboon <laughs> fala waroon a dem tey ndax seen conférence dimanche la tey ñuy def xadaratul jumaa wallahi mhm. Pape As ma fa nekk ne ma dama bëggoon nga ñëw def waxtaan wi ak Lamine bu sëñ Bay Mansour mhm. ba ma jox ko sama kàddu yoon yi moo tax ma foom mu ne ndax bàyyi confé naa naa bàyyi ba conférence ma dem. ndax mébét gu ma ko yàgg mébét. moo tax mu ne Serigne yow moom dugg nga àjjana ba pare bu neexee moom julli bu ci sonnati <laughs> wallaay ndeysaan ndax cofeel dafa xaw a rëy ndax Chérif yàgg nañ ko xam boobu tuut tàkk lañ waaye jeex gu mu jeex ci góor gi dafa dafa néew ku jeex noonu ci góor gi sopp ko lool ba pare wëlbatiku yaakaar ko ba àdduna yëpp xam ne dafa yaakaar sama maam Abdou te am na loo xam suma benn rakk moom ko nettali Pape Makhtar si bu sam Pape Alay Sy ci Jaksa sama tante Isa jur ko mu ne ma dafa am bés dañuy julli timis ba pare sa maam Abdou radiyallahu taala anhu ne sam ne ko sëñ Alaaji mu ne ko labbay ko mu ne ko baal ma may ma loxo waaye ñu doxantu ma mottali sama kurus li may wax ne shérif yaakaar bëgg gi mu bëgg sëriñ bi mais yaakaar gi nag moo ëpp doole wallaahi euh, sam papa ko ama du du n'importe qui moo daan laal yaramam daaw ko nangu waaw boo bëggee bës mun a déedéet parce que nit ñi dañu doy waar mhm. bari daaw ko nangu da ko daan bañ mais dafa wóolu woon sama baay. 79 mhm. laa gane àdduna ñoom ñaar ñoo àndoon màkk la mujjee armale def na ko signalé mu ne ko labbay ko mu ne ko su ma gé kii na nga ko na ma ko gardeel su ma génnee àdduna nañ nañ ma ci nañ nañ ko def sama càngaay. Mhm. waaw xam kooku am na fu mu toll ci moom. Mhm. waaye bi sëñ bi génnee àdduna moom it daa gëlëm ba fàtte càngaay la teewoon la ko denc war a jeg saa. 4-4 suñu abdu bi moo doon jaabante rek ba ñu gis ko ci mbaaxu yàlla kaata mu ne si yàlla may ma may ma loxo ñu doxantu tuuti ma mottali sama kurus sama papa laaj ñuy doxantu ni góor gi di mottali course am ba àggal mu ne ko ma ab ne ko suñu yàlla bi mu ne ko labbay ko mu ne ko ah mbaa yëg nga ne ku ma yaakaar fii ëllëg yowmal qiyaamati yàlla du tas sa yaakaar man abdu moom ci rajo lay waxe waaw ah, moom <laughs> bu dee ay foo moom. Ah. bul bul wax ndax jamono bi moom fi toll nii moom. surtout kii nag moom. <laughs> maa ko wax waaw. <laughs> samp si góor gi àggali kurus kurusam ba pare ne ko sëñalaa ji mu ne ko labbayk mu ne ko mbaa yëg nga ne ku ma yaakaar fii ëllëg yowmal qiyaamati yàlla du tas sa yaakaar. nga sopp ko loolu li ñoo tuddee al mahabba al dafa jafe Sidi Cheikh Ahmed yi boo gisee li mu ràngoo mu ràngoo ko ci kaw awliyaullah yëpp li mu am ci yonent moo jafe al mahabba al mooy cofeelu jagleel ku la lànkal rek danga nga manqué loolu ci moom ñaareel bi nekk ci kër gi di balballu te fekk fi aawa beeg ñépp balballu gi muy balballu mooy cofeel gi boroom kër gi jagleel ñaareel bi non manqué manqué cofeel mooy affaire bi mais cofeel moom ku la ko amee loo mënul am ci moom amul moo tax Sidi Cheikh Ahmed Tidiane yi yonent bi defal ko li ñoo tuddee exceptionnel may ko ba ci tariqaam sax àgg na ci gox yi kaw ngëneelu tariqa Sidi Cheikh Ahmed Tidiane te loolu yombul ngëneelu tariqatu tijaaniya sax yonent yi may ko mu dem ba àgg ci goxi kaw yonent yi may ko ne ko ku lay wuutu tamit tamat ko sëkk ni muy siégé fii lay siégé ca kaw te loolu Abdou Kane nettali na ma ko mu ne ma ab doo ko wax mu ne ko Abdou mu nee na maam ne ko Abdou mu ne ko làbbeek Abdou kan boo demee jeg saaw moo nekk ca kaas ba mm-hmm. Mm-hmm. Ah, mu ne ko Abdou mbaa yëg nga ne ensemble ni muy amee fii lay amee ca kaw mu ne ko seen bis bi ñuy daje bu waree bu bu jotee mu ne ko fu wulli yu nekk dana ñëw kuy dund wala ku dee ku ko mate mu ne ko Abdou mu ne ko làbbeek mu ne ko xàmmee nga nan ngay xàmmee kan mooy dund ak ku dundul hmm. mu ne ko kiy dund ñaar nga koy xàmmee ki faatu ñaar nga koy xàmmee mu ne kuy dund bu ñëwee day indi takkandeeram te bu ñëwee day wax ki faatu nag ni nga koy xàmmee mooy bu dina ñëw ak jëmmam mais du indi takkandeeram te du wax ku ci nekk nag rendre mission bi nga doon dox sa chef Abdou Kane ne ko ah, papa am nañ président mu ne ko waaw Abdou am ful la ne ko papa xanaa yaay président mu ne ko déet man dama doon expliquer rek <laughs> wallaahi ndeysaan ci wallaahi ndeysaan ci góor gi sànn euh, wàcc gu mu wàcc boppam rek mhm. te wallaahi bi muy dund moo nekkoon chef la chàkk mm-hmm. wallaahi mm-hmm. waaye yàlla ci almahabba alxusuusiya cofeelu jagleel rek ci la ci la yonent bi mayee lool Sidi Cheikh Ahmed Tidiane yi ngëneelu tariqaam àgg ba ca ardu simsim xadratul juma bi sa ardu simsim lañ ko la ko góor yàlla yi koppee parce góor yàlla lu ñuy indi fii soufisme lu ñuy indi fii ñoom ñu ngi ko ñu ñu ñu ngi ko recopier fële fa lañ ko copier parce que goxi kaw góor yàlla yi goxi kaw la ñu gën a miin ko goxi suuf Cheikh Omar Fouti daan na ko wax fas aluni an turuqi sama wala tas aluni an turuqi al ard fa inni alamu biha <laughs> laaj leen ma goxi kaw moom laa gën a miin goxi suuf waaw ah, sa nurihimu ayatina fan fil afaaqi wa fi anfusihim sëñ Babacar Si bi ko Cheikh Al Hadj Malick di jox xilaafa gi lu mu ko. hatta yatabayyana. ah annahu al-haqq ah aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid sëñ Babacar Si à l'âge de 37 ans amul sax 40 ans moo tax bu ma déggee ñu naan yàlla bi da ngay bàyyi bi am 70 ans ay wax la rek sëñ Babacar rëkk bay bëgg dee te amul bi muy bi muy jël doon xut bu zaman amul amul 40 ans. xoolal Cheikh Al Hadj Malick wax ko lu yéeme ne ko Babacar attention maa lay waaj wax loo xam ne yéeme na de mu ne ko mu ne ko nag dénku ñu la gox yi suuf de gox yi kaw ak gox yi suuf kon a wax ne ngëneelu tariqa bi Sidi Cheikh Ahmad Tidiane ci al mahabba al xususiya yonent bi jagleel ko ko may na ko sax ngëneelu tariqa bi mu ko jox dem na ba àgg ci gox yi kaw daje góor yàlla yi ca ardu sim sim ñoom ñëpp fa daje sëñ ba bi ñu tegee raw gàddu gi sëñ Babacar Si moo ko jël rajo ah, parce que dañ leen que dañ leen wax dañ leen wax nañu wax ci seen patron wax joo xamee ne ni du bari ku gën a am leen maanaa wax te gën ko gàttale yaay jël raw gàddu gi gaa yëpp wax ku ñu wax ñu ne di ñu da nga da guddule suñ baabu kër ne nii ñu ne ko bismillah mu ne mu ne mu ne xatmul wilaayati maktuumun sara irawu lawla rasulu la kaana cheikhu tijaani benn bayit kese la nekkul ci benn xasida kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah su ko defee Chérif maa ngi lay ziyaara wallahi dama bég bég goo xamee dama ne la ma ne ku fomm reer ngir reer reer ba tax nga bàyyi reer reer la barki Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wala yàlla ñu yàlla fayal ñu la amiin amiin xeer yi yàlla na gën a bari ci sa kaw amiin xeer yi yàlla na gën a bari ci sa kaw ndax xeer yee indi lii mhm. ndax nag wa baada sabbin wa tadlilin wa tasfihatin Cheikh Alhaaji Malik neen axfaw lahu kulla ma axfahu min hudami xeer yee taral ba mu bëgg dellu ginnaaw yàlla ne ko ah fasbir kama sabara ulul azmi mina affaire moom affronté ko rek mais ko affronté nag ba ba ba gaa yi doon sànni xeer dañoo dem ba ba ba ba ba ba rus sax ci la yàlla teggee lépp léeg-léeg nit ñëw fi jël tarixa sax dóor na lay xeer yoo xamee ne du cër xamul loo ma loolu waaye ay ah, xam naa ne nit xañ na la fi xeer ak xeer mujj doon sa sot waaw <laughs> réew mi si Cheikh Ahmed Tidiane yi nee ak a naqaree dund mais nee na dafa neex a deewee wallaay dëgg la booy dund gaa xeer rek boo faatoo ñu def la wëli yi boo xam ne da nga naan man kañ kañ laa liggéey <laughs> <laughs> moo tax tabaarakallaa insha allahu taala ca kaw ca kanam rek sa sëriñ dana la sàmm ci ndimbalal yàlla amiin te tamit sa sëriñ sax la mu daj ci ay xeer yow doo ko daj mukk mukk mukk mukk lu ne wax nañ ko ko waaw ah. hmm. nag pour affaire bi du yombee noonu la hmm, hmm, te bàyyi ma ko njëkkee Cheikh Al Hadj Mal radiyallahu taala xoolal ci tabaski ñëw Cheikh Al Hadj Mal baat bi dafa neexoon ak neexoon baat lool jumaa ji nga xam ne patriote la ba tey ñu ngi fay jullee Mor Cheikh El Hadj Malick <laughs> mais xoolal ni ko jullee moo yéeme suuratu yaasin la ko jullee daa jàng yaasin ba mu xaaj mu bàyyi fa ràkk bi ñëwaat deuxième ràkk mottali yaasin xoolal yaasin moo samp jumaay Tiwaawan mais nit ñi commentaire di commentaire baat bi ba faf mën a daal mën daal jiite mujj na aram ci man léegi comme nit ñi léegi baat bi moo leen dafa neexoon baat koy xool tabaski mu julli tabaski ba àggal xutba xutba bu neex jàng sabih sabih isma rabbikal ala wa shamsi bu neex ndeke am na ñoo xam ne bi ne ne seen xol loolu dafay yàgg dafay moo tax maa leen di ji maa ngi leen di ñaan yàlla ku yore sa téléphone di def nii ba gis shérif nga liir ci suuf ñu def lu bul bul bul déglu puusal dem waxi noonu dees ku déglu. wallaahi ci puusal mu dem. puusal ñu dem am na ñoo xamee li leen di dundal mooy wax ci nit lu dul yoon xoolal mais benn jëmm ne am na man kaana. yusalli xalfa sayidil xaaji malik si radiallahu taala anhu la lahu wala udhiyata lahu góor gi baat bee neex rek waaye ku julli ci ginnaawam de amoo julli amoo tabaski kon kay sëriñ sëriñ bu ñu ko xaañee xeer mu mën koo dékku ah xaañ xeer goo xam ne dañ la ciy fay xaalis léegi wax nga ko ca mbuur de nee nga xaañ gi lay xaañ xeer ñu la ciy fay xaalis bu lii de kenn mësu koo dégg moo tax am na koo xam man ji tax ma ragal xeex nit koy xeex yaa am koy samp te yëgoo ko. wallaahi ak hmm. koy xeex yaa ngi koy samp te yëgoo hmm, hmm. koy wax lu ñaaw yaa ngi may nit ñi pour ñu xam ko te yëgoo waay waay bayaal bayal bayal bii rek sëñ bi boo ñëwoon sotti ci mbalit sotti ci mbalit ba kenn gisatul bayal ba bayal bi billaahi bu tawee nga gis gàncax gu rafet <laughs> waaye boo ko fa sottiwul bu tawee doo gis dara. wallaay dëgg moo nit ñi dañ lay wutal yow dañ lay wutal yiw rek fi mu nii yow même boo boo jaamootul yàlla yàlla sax yow yaa ngi yiw yoo xamee ne ni parce que wax ci ginnaaw nit ak di ko waxal lu ñaaw loo xamee ne nii était pourtant ku la laajoon billaahi doo wax ne da daf maa def dara wala xamal naa ko naa gaa yi wax rek may riirandoo di wax kon yal yàlla sàmp la yal na yàlla sàmm la kontaan nañ bu baax waaye sëriñ Abdou mii mhm. man sëriñ bi mu ne ma dam bi mu ne oto bi maa ko euh, moom laay jaay ni quarante millions ko am na ko koo ne ma sëriñ day amul oto buy dem day luye da lay oto oto référé bu ñëwee da koy da koy gaari bi waxee lii ay ne damaa jàpp léegi moo tax ma toog si dëkk bi reetaan wallaay mu ne mu ne waxaat ko ñu dégg ah, waxal ci kaw ko li nga wax ma ne am na ku ne ma ah? seen sëriñ boobu ngeen wax sa Dakaaru jaay amul oto buy dem bu waree ñëw Mbuur day luwee ñaari oto jilanteeg moom ñëw wala mu luwee ñetti oto jilanteeg moom ñëw mais Dakar foo ko gis day luwee taxi di dem amul oto moo tax benn oto bi maa moom day jaay 40 millions ma xool Euh, sama budget am su ko defee ñu ndokkeel sëriñ mi nga xam ne moo ñu boole ci yiw bi muy sëriñ Abdoul Aziz mi ni mu ko waxee moom yàgg nañu bàyyi xel mook shérif mi te wallaahi xamuñu ku ma jur yàgg nañ maa bàyyi xel te xamuñu ku ma jur ba ñu xamee ku ma jur lañ ma gën a jàpp encore suñu Abdou mi wax na ko sànq. Mhm. Massaani jëw jëkk saaw suñu babalaaju moo ko daan teral ak yooyu yëpp vraiment mu nekk taxawaay bu am solo bu ñuy taxawee ca Mbuur yal na yàlla guddal fanam. li ma gën a neex mu jël daaraam tuddee ko Cheikh Al Hadj Malick mhm. ma ne ko loolu sax bàyyiwuñ ci xel daara yëpp ci daaraam la ñu bàyyi ko. Mhm. waaye ñu bëri bàyyiwuñ ci xel. defee yal na yàlla dundal barab ba bi jaaxe rasulillahi salaa sallam ànd sëñ Maam Mor sa soppe jàng nga ko xam te tamit jàngkat yi lay jàngal bëri na waaye xam naa moo la mën a daaneel ndax moom nii muy defee moom mor moom rek moo ko mën ci réew mi waaw voix bii moom moo ko jàngee rek ci moom kese mm-hmm. ah, mu nekk nag ku baax nekk ku franc ku jub ñaanal ko yàlla yal na gën a guddal fan personnalité voilà wax nga ko sànq fonk boppam da ci am solo waaw ah, nit dafa war a fonk boppam ndax dafa rëy moo tax ci yàlla kon nag bu doyo dalee boppam rek yàlla da koy jéppi ah yàlla da koy jéppi waaw wuti leen ak fara waaw que boobu boo fa àggee rek mooy dem nga ba euh, fàtte yow yaay kan te nit yàlla yé gars yi dañuy wax safara yi ni waaye safara est-ce que foofu ko mais safara sa àdduna dugg fi baaxul te moom la yàlla yéenewul nit mooy nga dem ba fàtte yow yaay kan mm-hmm. dugg nga ci safara sa àdduna dem ba fàtte yow yaay kan bu ko defee nag yàlla ko yàlla dolli sàmm di nuyu sunu doom ji tabaarakallahu di Mouhamadou Lamine di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam bu baayam lool vraiment déggal ko mhm. Chérif wax na ko sànq ma ne moom moo ko tudd ma ne ah, mhm. lool day tawfiq la waaw que nga tuddoon ba bu ngeen toogee ñu yaakaar ne ay copain ngeen moomu muy wax wallaay ndeysaan wallaay di nuyu waa xadara bi yëpp gis nañ fi Sidi Ahmed Mbaye defe naa doomu Oustaz mbay waaw waaw Oustaz Mbaye bu Morolan mm-hmm. nekk suñu wëllëre tabaarakallaahu nekkoon kenn ci soxna Tabara yaay sëñ Maodo si waaw tabaarakallaahu moom mi defe naa si rahmat bu mer Tabara lañ ko tuddee waaw ah, tabaarakallaahu kon nag ah ñi ñu fi fekk ñëpp ay boromi xam-xam lañu waaw daa am lu ma junjoon nag xaw ma dañ ma koy may way ba leen xadara wala déet mm-hmm. mooy li ma waxoon ne yàlla may na Cheikh Sidi Ahmed tiijaan yi ci ndimbalal yonent bi mm-hmm. tariqam di flotte ci kaw xaw ma bàyyi noonu ba mbëstan ko xaw daal mu ngi noonu shérif daal. ñun kay duñ la <laughs> xam nga ci kaw ci goxi kaw dafa am benn barab bu ñuy tuddee qimmatul jawza mina dawa mina dawaa'ir al falakiya qimmatul jawza al qimmatu bi firi njobaxtan jawza mina dawaa'ir al falakiya mm-hmm. maanaam soo demee ci kaw xam nga fii ni mu amee ay route nit ñi di mën a jaar soo de demee ci goxi kaw noonu la amee ay route yi biddiw yi di ci jaar fii jant bi fii weer wi. sëñ bi neex na dégg avion yi rek dañ am yoon. jeex na ah. du fu neex jaar. chéri avion du fu ko neex jaar dafa am yoon. day am ba yoon rek mu ci daanu ci suuf. léegi nag moo tax baal ma moo tax bu jógee fii. Ah. bu jógee senegal faw mu traversé Casablanca. Mhm. génnee. E génnee ji Espagne. Mm. door a jël Paris dem itali dem dem Belgique. su ma jaaxal naa ko. <laughs> am yoon buy wàcc ci yoonam rek mu ngi ci suuf. wallaahi. loo gis rek am na am na voie. ci kaw nag noonu la amee ay voie ci goxi kaw. su ko defee fii biddiw yi mais nag doomu aadama rek la yàlla bind moom mu bàyyi yoon wam doon jaar ne man bi ñu wutal shérif laay jaar. la jël ko foofu wér. <laughs> ay ndeysaan lu <laughs> jur ko fa doomu aadama melo mais yàlla nee na loolu no doomu aadama moo ko sañ ci sama mbindam mi mais malaaka sañu ko weer sañu ko jant sañu ko jant bi du bàyyi yoonam weer du bàyyi yoonam la shamsu yambagi laha an tudrika al qamar wala laylu saabiqu neeri wa kullun fi falakin yasbahuun <laughs> léegi nag foofu dafa am foofu gën a kawe fu ñuy tuddee qimmatul jawza dañuy wax ne drapo ngëneelu tariqatu tijaaniya fa lay foloote moom la Cheikh Al Hadj di junj naan laqad rufiat raayatu uslubi cheikhina fa man shaa fal yuumin wa man shaa ankara damaanu nabiyillahi nafiyun qitaayi ila aaxiri dëhri ani cheikhi kurira léegi sëñ Mouhamad bun Michri nag dafa nettali ne benn naataangoo ngënku tariqatu tijaaniya moo ko wax dafa gis bi basirati alqalbiya nee na ñu wan ko mbooloo moo xamee ne nii mbooloom yonent la ak ay malaaka jamaan min al rusuli wal malaikatil kiram nee na wa baadal min al insi awal jinni ak lenn ci ay nit ak ay jinne nee na ñuy julli jullik fajar yonent sallallahu alayhi di leen jiite nee na ci première sàppe bi yonent yàlla aadama moo fa nekk yonent yàlla ibrahim yonent yàlla ismail deuxième rakka bi al xulafa al arbaa babacar omar Ousmane Seydina Ali ne ki leen juróomeel nag bi zaatihi al mamlua bi min arwaadi sayyidil na moo leen juróomeel nee na yonenti premier rakk mu jàng faatiha teg ci sabbih isma rabbikal ala deuxième rakk nee na mu jàng faatiha do song wa shamsi wa duhaaha nee bala muy sëgg mu jàng salaatul faatiha nee na bi yonent bi sërmane ne asalaamualeykum nee na mu wa waa fi salaati shay a mu am lu mu peeg ci julli ka annahu arraada alqaasif riir moo xam ne riiru dënn nee na di riir nee na ba sa nopp mënatu koo supporter nee na fa isa wa sayyidina jibril da ko jibril la muy ñëw ci mbooloo moom ne na pour leeral ngëneelu julli gi ak ngëneelu salaatul faatihi nee na jibril di ñëw nee na may may may may commencé di for ci li muy wax nee na bi jibril di gën a jege di gën a jege mbooloo bi ndeki jibril kàddu yi lay wax hanii an hanii an hanii an liman daxala tariqa tijaani waaye gaa yi ndokkeel naa ko dugg ci tariqa bi waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> ah waaleykum salaam wa rahmatullahi xam nga nit daa mën a weddi waaye lu nit xamut waruloo ko weddi eh, waaye ñu ngi sant yàlla lim wax waxuma sax baatin waaye daayir ku ko xam rek xam nga ne lim wax mën na nekk mooy li ñu wax léegi wa kullun fi falakin yasbaxuun avion yi am nañ yoon wu ñuy jaar ci kaw wa illaa duñu dem am na nu muy mel sax dañ leen di wax ne xaar leen ba mu leer ngeen door a dem voie aérienne waa ASECNA loolu la ñuy jëriñ ñooy wax ñooy indiqué avion bi fan lay jaar bu génnee Dakar Mauritanie jël relais bi bu génnee Mauritanie Maroc jël relais bi bu génnee Maroc Espagne jël relais bi bu génnee Espagne France jël relais bi bu génnee France Belgique jël ko réew bu mu génn rek dañuy jël relais wane ne avion tel tel man mi taxawaalo lu bari gis nga des fois guddi gi te man guddi laay tukki yooyu toujours moo tax may jël côté fenêtre pour mën a xool da nga gis avion yi dañuy bari surtout avion yi dem Charles de Gaulle dañuy bari bari boo xam ne chaque minute am na avion buy wàcc am na buy décoller chaque minute nag 24 heures sur 24 bokk na ci aéroport yu gën a fréquent avion ci ci Europe muy Charles de Gaulle chaque minute laa wax avion dina décoller avion dina wàcc da ngay gis avion yi bii day nekk ci kaw bii nekk ci suuf bii nekk nii bii nekk nii. ci kaw ci kaw ñuy xaarante. pour bii wàcc bii war a xaar bii war a xaar pour wàcc. ñun bi ñuy bi may ñibbisi day ñëw bay atterrir pilote bi euh, euh, ni ñu koy waxeeti commandant de bord bi déclaré ne dinañ am patience su 15 minutes parce que l'avion présidentiel va décoller ñu nekk di wër pour xaar avion présidentiel décoler pour dem ñun ñu mën a wàcc. yooyu Seydina Cheikh di nett di mooy loolu bi ci des bu ngeen xamut ardu simsim mu ngi diggante asamaan ak suuf yeggul asamaan yeggul suuf pour ki may ki dëgg-dëglu bi bëgg koo diingat ma wax la ne ardu simsim boo may laaj fu ne mu ngi ci diggante asamaan ak suuf ma yebal la ci téere bu ko indi bu ñuy wax jawahirul iklim gis nga njàpp mi nit ñi di jàpp ca ngaayal farata yooyu yëpp yàlla def ci bind ay malaayika yoo xam ne dañuy naaw dem ardu simsim ñoom foofu la ñuy defee seen jaamu yàlla seen ibaadaat yëpp fa lañ koy defee te malaaka ya fa nekk xamuñ ndax yàlla bind na maam aadama sax te ci jëfi doomi maam aadama yi lañuy ñuy jóge te foofu bokkul ci diiwaan yi foofu permenant la mu ngi diggante asamaan ak suuf yegg siwul suuf yeggul asamaan te jëfi doom malaaka yi ji jóge ci jëfi doomu aadama yi ñoo fa nekk waaw pour wax la ne sama sëriñ li muy wax xam na ko yow miy déglu di seetaan <laughs> waaw fa tabaarakallaahu ah, ñu ngi lay sant si Malick si Demba Bunna si Demba ja ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla dolli la sàmm yooyu li ma doon wax léegi xam-xam moom rek moo konte moom laa wax léegi pour jeexal bilal bi doon nodd ci jumaa ji bi may julli ji invitation bi ñii duñ ma bàyyi ma fet ñoom man su dama leen ne nañ leen dem bu ñuy xutba ci wolof buñ ñëwee ñu baamu suñ ci tisbaar ndax dañ maa invité te yàgg dañ maa invité nanguwuma dem ndax jamono moo soppeeku gaa yi lu ne la ñuy xutba te man gëmuma ko ndax gisuma ko ci sunna waaye kontaan gi ma kontaan tey sëriñ bi ma yeggee ni mag ñi daan jullee lañ ko jullee ay tukkulóor lañ ñetti nodd yu rek la avant boobu bayaan ki am na ko ñëw def bayaan la ma gën a neex nag ci jujaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam la def waxtaan bi ci soxnaay yonent bi sa alayhi wa sallam niñ teglantooye ñaata la so yonent bi ci ñaata ñoo faatu avant moom ak ñe ñaata ñoo fi des après moom waaw non xam-xam moo neex bi ñu ma jox ko loxo ni ko sëriñ bi man de sopp naa la waaw sa bayaan bii ba pare nag biñ ko mu yor personnalité bi maam moor yor biñ ko signalé ne ko imaam léegi mu ñëw waa ji nii la ko def ci tànk mu ne ah lii may wax nag du lu ñuy parax paraxee lu ñuy def par benn benn la ndax ci yonent bi la ak soxnaam yi kon nag asalaamualeykum wa rahmatullah biñ paree ma ne ko nii rek la gaa yi làmb ja yàgg nañ fa lool te bëgg faa yàgg te yàgg fas yéene sax fa fekk jël la amut ba laa yusminu wala yughni min ju'in ci jëree dara lu dul <laughs> voilà kot ba pare fay sa paas match de football ba it bu bit bi dogee amoo ci lu dul yée fay sa paas waaye jàkka ji mu ñu ñu muñal yàlla 30 minutes yu mag ku ci seetaan film it mën na leen film yi ku buñ koy seetaan moom dugal ci kër yi day mel ni seen roox yi shérif dañ ko aj du ñu yënku du ñu woqatu du ñu xesenu du ñu saqat ku ciy saqat sax di nga ko naj ndax bañ baat bu la rëcc ci film bi waaye bu dee jàkk ji bu sëñ Mamour di tari Faatiha bu boobu cee kii nag xanaa xamut jamono imam bi mokkalut jamono wallaay yàlla dañ koy yóbbandi ci moom waaw waaw mm-hmm. ma tontul ko pour pour ñu julli la imam muusa defoon laa lay def wax naa ko keroog samedi bi passé gël tàppe eh, ci jamono 2002 bi coupe du monde imam Moussa Gueye mii ci amoon siis dëkkandooru shérif ndax shérif foofu la nekk yàlla def gaa yi bëgg koo nax sëriñ paay yu ñàkk fay day kat de paay benn xale bokk ci woon benn xale nga xam ne paay yi niñ doyee am nañ seen oto yor seen kër def délégation seet si imam Moussa ne ko dañ bëggoon daal xam nga ñun Dakar la ñuy jullee te ñun fii lañ taamu la ñuy liggéeyee te fii lañ taamu jullee euh, ndax rek sa xutba ak sa tabarkal la julli waaye dañ bëggoon rek ah ñu avancé julli gi ba une heure et ñu mën a julli une heure ndax mën a dem liggéeyee yooyu le wax ba pare xamuñ ne imam yéeg na ne coupe du monde bi Séoul lay amee Japon nikkati boobu gars yi football bi <laughs> décalage horaire yi match bi lañ bëgg a seetaan yi di naxee imam Moussa loolu te xamuñ ne imam dafa dégg jamono imam Moussa ne ma ma bàyyi leen rek ñu ne ma ah fii ngeen ma ko waxee te mbooloom jàkka ji ñun ñëpp ko bokk da ngeen di bàyyi bu ma ñëwee ba ci jàkka ji ma suu soumettre ko waa jàkka ji ñu ne ko waaw incha allah imaam Moussa bàyyi ba àjjuma moom moo waroon jiite mu ñëw ci minbar bi taxaw ba mooy def bayaan moom door a jiite daldi di téen ne yàlla muñal xam nga imaam yàlla ko dimbale dal di téen ne ko yàlla maa ngi lay ñaan man sa jàmm bu doyee di bii muñal ñun ñoo waroon a muñ waaye léegi yàlla yow yaay muñ ndax xaw ma loo def sa jaam ñi man day gis na seet naa seet gisuma loo leen def waaye man daal maa ngi jaaxle yàlla xaw ma loo def sa jaam ñi ba bugg yàgg ak yow ca paayaa ngi ci sàppe kanam bi ña ko ko tawatoon ñëpp a ngi yàlla maa ngi lay yëgal sa jaam yi toog ku ci wéet ak soxna sam gën a bëgg du bëgg a tàqalikook moom ku ci wéet ak sëriñ ba mu gën a bëgg du bëgg a tàqalikook moom ku ci wéet ak lam gën a bëgg du bëgg a tàqalikook moom ku ci dem ci powu àddina yi làmb jaak football ba du fa bëgg du fa bëgg a gaaw a jóge yàlla yegg na ci bekki dëng sax am coroom di wax ak coroom wala mu taxaw ak moom du bëgg a tàqalikook moom waaye waaye yow yàlla loo ñu def ba bu ñiiteek yow rek ñu ngi bëgg a tàqalikook yow ay waaye yàlla loo ñu def léegi nag gannaaw defoo ñu dara ñun ñoo la def muñal ndax ñun say jaam lañ jàpp foofu jàpp leen foofu ba biñ seen male bàyyi na ko gisee ko woon noonu baal ñaax <laughs> ba tey waxul ak ñoom de bàyyee bàyyee mujj wuñ nuyu ko rek ne ko gisee ko woon noonu baal ñaax waaw nga xam ne bu fekkul bu fekkuloon imaam ñor am am maturité am xel dañ koy nax fekk dara bëgg a baatare julli gi pour dem seetaani futbal rek la loolu nag jamono yegg foofu waaye du tee rek nag ñu bàyyi yàlla ñi ko bëgg ñu demal seen bopp ñi bëgg àddina yi nañ dem ci àddina ñun terewuñ kenn po ndax mënuñu ko yàlla mi bind njub moo bind dëng te faw am ñu dëng waaye moom mi bind njub ak dëng nag moo ne jubbanti te kon faw ñuy wax faw ñuy jëf su ko defee ñun doonuñ ci dara lu dul wax wa ma alayka illa al balaax wa beneen mu ne ko balaaxul biin kon nag loolu rek yaqulu amanna wa hum la yuftanuun wa laqad wa laqad fatanna alladina min qablikum wala yalamanna alladina amanu wala yalamanna alkaadibin beneen ba mu ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan moom lay wax ni wa annakumu ilayna la turjaun xamu leen ko bu ngeen ko xamul fa taala allahu almaliku alxaq laa ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yadu maa allahi ilahan axar dangaa dof rek waaye laa burhaana lahu bi fa innama xisaabuhu inda rabbi innahu laa yuflihu lkaafiruun lii rek la allahu waliyu alladina aamanu yuxrijuhum min adulumaati ila nnuur walladina kafaru awliyaauhum attaaguut yuxrijunahum min annuuri ila adulumaat lu tax ulaayika ashaabu néeri hum fiha xaalidun yan yàlla musa yàlla am ay nitam ñu bëgg leen protéger leen nga ne du fi amee shérif mii ba ko yàlla di def shérif moo ko tànn shérif abdati bala yàlla di boole ci kër rasulullah tànnoo ko moo la ko tànnal ku la ko iñaanee nag boppam du tee foo génn ñu sukk raam jox la ñaari loxo ay dara karara làmb poos jox la nga tuuf li tuuf li rek defu fu ku fi génnoon ñu ne la tuf nga xeex léegi yow yow ngay sàkku ci shérif tufli tam tufli di du benn lii kii di wax rek ku jéey ma la ca Cees mu mu ne bu dee tuflit yépp benn la ku jaan sereti nga xam <laughs> mu ne ku jaan sereti nga xam kon ñu bokk jàng fa ah duma ñu bokk bàyyi shérif mu ñaanal ñu ñu yewwi ko ñun ñu julli buñ noppee nag sëñ Mamour mu ne buñ jàngee faatiha ba noppi ñu tëjee ko salaatul faatihin def ko àddiyee seydinaa muhammad sallallahu alayhi mu ne ñu ñaanal ma maag moom yàlla boole guddal suñ fan ñun ñépp wéral suñ cër ñun ñépp mu ne ndaxte man mii waaw mu ne wallaahi mu ne summa wallaahi mu ne ñi ñi ko xeex ñépp ak ñi wax ci moom maa leen di njëkk àjjana amin ay dara karaara amin mu ne daf ko xam li tax mu wax ko mu ne loolu suñu diggante la ñun ñaar jërëjëf ci ndigalu chérif hmm? amin amin amin amin ay dara karaaraan imaam Dame Kebe ñu ne yegsi na léegi ànd ak délégation incha allah buñ jullee ba noppi